Ababacar Mboup euh, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye euh, nga nekk coordonnateur au collectif And Sàmm Jikko Yi benn question d'actualité bu njëkk buñ lay laaj ñaari góor yoo xam ne dañ leen fekk fële ca Parcelles Assainies ñu doon def ay acte contre nature lu ne mel di ñu replonger waat ci débat bi nga xam ne saa su ne dafay am fii ci Sénégal jëm ci wàllum criminalisation de l'homosexualité maanaam criminaliser euh, mbirum ñaari tur yi ban jàngat nga nga am ci fee boobu nga xam ne am na ca Parcelles Assainies. waaw jërëjëf Ndeye Comba nga may ma ma nuyu euh, seen auditeurs ak auditrices yi nga xam ne ñoo leen di déglu di leen suivre aussi ci réseaux sociaux yi waaye ma nuyu waale Sénégalais yëpp euh, xew-xew yooyu am nag euh, dafay mel ni mbir la munu tàmbali di seetlu ci réew mi te it doonul loo xam ne dafa am nii rek ndax tàndale la wala dafa am nii rek ci hasard tey jii ñoo wax ndaw ñooñu ci Parcelles Assainies waaye nag yaakaar naa ni dañ ko gisaat te gisaat lu ñu mel te gisaat lu ñu mel ci réew mi am nga doomu aadama euh, dafa doon ku néew doole doon koo xam ni dañ koo bind ci muy tooñ di juum nga xam ni kon dafa am ci buy dund ci société nu mu war taxawee ak société bi nu mu a taxawee ngir euh, néew dooleem googu ak tooñam googu muy tooñ muy man di wàññeeku ba nga xam ni buy am tamit du doon luy gaañ tant que nag euh, Euh, mbir mii ñuy wax nii mi ngi nekk ci cadre boo xam ne su manee wax privé nga xam ne nit ki xëy na ci néegam la tëju def ko génnewul kenn sax euh, ngaañ gi dana dana woyof waaye bu fekkee dafa génn ci espace public bi rek dafa doon loo xam ni nag euh, dafa laaj ñëpp taxaw ci ngir ñu mën ko mën ko mën ko mën ko saafara te bu boobaa nag responsabilité ñëpp lay doon waaye war nañu tey laaj lan moo waral mbir yi mel ni dafa tàmbali takkarnaase di ñëw ak di ñëwaat ba daanaka léegi sax ñu jàpp ni léegi ni muy dikkee dafa mel ni dafa bokk ci dundu Sénégalais yi am ngeen ni Sénégal ñun xamuñu woon lu mel nii li ñu xamoon daal mooy euh, góor goo xam ni dafa efféminé dafay fréquenté jigéen ñi di fóot di yu demee noonu loolu moom xamoon nañ ko wax dëgg yàlla ci réew mi waaye góor ak góor guy sëy ak jigéen ak jigéen buy sëy loolu moom miinuñu ko woon ci dem loolu yaakaar naa ñoo ngi ko tàmbalee dégg ci les années 2000 fii ci Sénégal bu ngeen fàttalikoo euh, takkante boobu doon am mariage boobu doon am fële ca Mbaaw en 2008 nga fàttaliku yi tamit euh, takkante boobu ñu doon def fële ca kaw lax ci décembre quinze wala sax bërki démb ñoo ngi wax fii ci filaw yi ci géejewaay ñoo ngi wax fële ci euh, Sicap Karag la bu ma juumul ci jamonoy Coupe d'Afrique bi ci ñi nekkoon ci kaw jàkka ji noonu ba ci tey jii ak yeneen yu ni xaw a mel loolu nag dikk di muy dikk nii man dama yaakaar ni danañ ko gisaat di gisaat lu ni mel ci biir réew mi ndax ñaari yëf benn yëf bu njëkk bi mooy dafa am euh, benn euh, gis-gis bu bees ci àdduna euh, benn pas-pas bu bees sax laay wax ci àdduna bi pas-pas bu bees boo xam ni dafa am ay mbootaay yu jóg te mbootaay boobu bu ci ëpp doole jiite leen gàddu gàddu gis-gis boobu gàddu pas-pas boobu mooy Nations Unies ñoom dañoo gis ni euh, borom ñaaru tur yi wala góor jigéen yi dañoo am àq ak yelleef ñi ko ñëpp amee kon li ñu bëgg a def ci kaw suuf si aussi dañ ko war a def te kenn du leen euh, bu ndoxataal kenn du leen boddi dañ leen a war a boole di jëf jëflante ak ñoom kon niñ koy defee ak ñëpp. ndax ñoom ci seen gis-gis jàpp nañ ni nit su tànnee ni moom jigéen la bëgg a sëyee loolu choix la waaye góor gu tànn ni góor la war a sëyal tamit loolu choix la dañ ko ko war a protéger loolu moo waral ñoom ñu jël benn résolution boo xam ne moom la ñu wax la résolution 17 19 bu 15 juin 2011 pour pour pour consacrer li ñuy wax ay droit nouveau mooy àq ak yelleef yu yees te mu jëm ci mbiri góor jigéen yooyu beneen bi ci topp yi tamit bu loolu jàllee dañoo di jël Euh, ci euh, UNESCO ndax xam nga boo jëlee wàllu yoon am na ñu mën a nangu am na ñu ko mënta nangu mën nga cee daan ñi mën nga cee bañ a daan kee waaye nag ni ñuy def ba fexe ba renouveler génération yi ñu tàggat leen ci loolu liggéey boobu UNESCO moo ko yor sur le plan international ñu fexe ba mu taxawal benn euh, benn xalaat benn liggéey benn mébét boo xam ni tënk nañ ko ba pare ñu tuddee ko l'éducation les principes directeurs internationaux sur l'éducation complète à la sexualité maanaam jëmmi sëy ak lépp lu ca aju ma nga xam ni sëy bu mat lay doon du am dara lu ca des loolu ñu tàmbali di ko jàngal xale yi nga xam ni am nañ juróomi at jëm fukki at ak juróom-ñett d'ailleurs ndey ko ma boo fàttalikoo sax loolu moo indi woon euh, mm-hmm. document bi ma lay wax bi biñ koy war a valider fii Sénégal moo indi woon coow li amoon Saly en deux mille vingt bu ma bu ma bu ma juumul alors ci loolu xam nga kon ñoo les générations ba xalaat yi ak ngëm-ngëm yi man a soppeeku ci loolu waaye yemul ci loolu ci wàllu diplomatie yi tamit dañoo tënk benn euh, charte boo xam ni juróomi warteef la maanaam obligation juridique fondamentale des états concernant la protection des droits de LGBT nga xam ni képp koy góor jigéen rek dañoo tënk sa état ci nga jël ay engagement te lépp looy seqati ak réew yi moo xam benn réew la moo xam ñaari réew moo xam euh, partenaire privé yi la loola dafay bokk ci liñ ciy dugal léegi nii beneen bi ci des tamit mooy <coughs> euh, boo xoolee lu mel ni l'autre cercle ndax xam nga nit ñi dafa am lu ñuy wax le milieu du travail ay mbootaay taxaw di jël ay nit ñu cay liggéey fànn boobu tamit l'autre cercle moom moo ko yore nga xam ni multinationaux yi nga xam ni euh, entreprise yiy liggéey ci loolu tamit dañuy engagé wu ci am na quota góor jigéen boo xam ne dañ koy yër ci entreprise bi waaye seen alal tamit dafa am loo xam ne dafay dem ci di jàppale aussi góor jigéen ñooy Euh, xëy na bi ma ci waxaat bi mujj ci premier point boobu rek mooy lu mel ni le PGA PGA nga xam ne benn mbootaay la boo xam ne dafa dajale ay assemblée ay sénat ay parlementaire nga xam ni jëmmi institution bi da koy dajale waaye day dajale aussi ay jëmmi député yoo xam ne dañuy liggéey pour jàpp ndalal ñi nga xam ni ñoom ñooy góor jigéen yi seen aq ak sa yelleef ak ñu mën leen boole ci société bi ak ñu mën a bokk aussi loolu mooy premier élément bi. deuxième mm-hmm. élément bi bu fekkente ni fii Sénégal la Sénégal tamit seetlu nañ ni gouvernement bu Sénégal depuis 2016 mi ngi dox ay jéego pour jéem a dëppale doxalinam ak gis-gisam. ak ni ko Nations Unies gisee ak li ñuy wax le droit international loolu moo waral seen mébét bi ñu am mébét muy lu ñu bëgg mooy bu ñu àggee ci deux mille vingt six kenn dootul boddi kenn fii ci Sénégal discrimination def ciy jeex lii ma la wax boo demee ci la vision de la SNEC 2 da ko ca fekk beneen bi ci des mooy euh, yi tamit dañoo jël àq ak yelleef maanaam euh, droit bu ñuy wax bu ñu jëmalee ci góor jigéen yooyu ñu dugal ko ci biir constitution bi loolu mi ngi ci article vingt cinq alinéa trois alinéa 3 ñu koy wax les droits d'autrui droit yi muy àq ak yelleefu alaxam àq ak yelleefu keneen ka ci des waaye yemul ci loolu orientation sexuelle nga xam ne giseen ci sëy ak defeen ci sëy tamit loolu bind nañ ko ci le nouveau code de la presse article si boo ca demee loolu moo waral li tamit gouvernement bi retiré na fi mu nekk nii doomi Séné sénégalais yëpp léegi amatul ndey amatuñ bàyyi ci suñu carte d'identité biométrique yi waaye tamit suñu permis de conduire yi fi mu ne génne nañ ci sexe dugal ci genre ba noppi créé ministère boo xam ne mooy saytu loolu di ko toppatoo léegi nag lii soo ko gisee dangay gis ni kon lii ngay wax ni ni séntu nañ dégg nañ ko parcelle wala dégg nañ ko feneen lu yàggul loolu tuuti ci kanam danañ ko gën di dégg ci réew mi danañ ko ci gën di gis bu fekkente ni askan wi taxawul bu fekkente ni askan wi jógul saafara ndax man daal li ma jàpp te jàpp ko. Hmm. mooy ni ko président de la république waxee woon fële ci itélé mooy mbir mi mbirum société la nit ñi rek ci seen mbooloo ñoom ñoo ko mën a lijjantil seen bopp waaye état yi moom amatuñ ci pexe. ñu dégg ci biir wax euh, nga wax kuréel gi di di PGA euh, PGA euh, lan la signifié ban taxawaay la am par rapport ak jëm ci droit de LGBT waaw PGA euh, euh, benn tënk la ci ay waat yoo xam ni euh, ci turu anglais la waaye mi ngi firi rek maanaam jëfu yoo xam ni dafa wërngër këpp adduna te jaare ci maanaam ay ndaw ay ay ay ay ay ay ay ay député ay parlementaire mu naan action mondiale parlementaire ñoom ñooñu nag dañoo dajale ay parlement ci àdduna bi ay ay assemblée nationale wala ay sénat ak tamit ay jëmmi parlementaire maanaam ay député nga xam ni ay junni junni lañu ci biir àdduna bi ñoom ñooñu dañ leen di sant ci ngir euh, discrimination maanaam boddee bañ a amati ci kaw suuf ak i tamit ñu fexe ba góor jigéen yi mën a bokk ci mbir yépp di doxal dañ leen di sant ñoom ci seeni biir parti politique ñu am liggéey buñ ca taxawee fexe ba bu ay élection jongante di am ñoom nañu def seen lobbying ba candidat yi bu dee ci élection locale la bu dee élection euh, législative la bu dee élection présidentielle ñoom liñ leen liggéeyloo moom nañ fexe ba seeni parti nañu am ay candidat yoo xam ne ay góor jigéen lañu nañu fexe tamit ba ci alliance yi nga xam ne dañ koy am mbootaay parti yi dajee di def ay coalition yu ñu demee nañ def le tout tamit ba fexe ba lu ñuy proposé ci instance yi na ci góor jigéen yi bokk waaye nañu fexe yi tamit ba bu ñu demee ci seen parlement yi nañu liggéey ba fexe ba waajal ay loi sensibiliser aussi yeneen député yi ak i tamit sensibiliser euh, décideurs yi ba fexe ba ñu gën a jàpp ndalal góor jigéen yi maanaam kenn dootu leen discriminer waaye seenu bokk li ñuy wax inclusion tamit mën a am ci société bi ñu mën di bokk te kenn du leen boddi donc loolu moom mooy PGA ci tënk. Euh, kon fan ngeen toll Ababacar Mboup si seen euh, projet pour criminaliser wàllum nguur jigéen fii ci Sénégal da ngeen ko mujj a bàyyi waaw wala déet. waaw euh, loolu moom ñoo ngi ci ba tey xam nga ci treizième législature bi dugaloon nañ ko. waaye ñoom ñu jalgati yoon def lu leen neex daal di bloqué proposition de loi bi yàlla dogal nañu dem nañ nag ci eh, ay jongante ba askanu Sénégal fi mu nekk nii mel na ni am na lu mu wane loo xam ni baaxoowuñ koo xam ci réew mi ba ñoo ngi war a dellu ci quatorzième législature bi incha allahu rabbi nag bu ñu demee ñun groupe ya nga xam ne danañ fa taxaw yëpp ndax xañ na wax ak cent soixante cinq députés yëpp du yomb waaye danañ dem jaare ci seeni mbootaay waxtaanaat ak ñoom ci proposition de loi bi yóbbul leen ko xamal leen ni leen ni lii bëgg nañu ñëw waxtaane ko ci assemblée ba waaye bañ cee yam bëgg nañ aussi ñu voté ko ndax li tax ñu voté ko xam nga ndey kumba boo seetloo mbir yu mel nii su amee léeg-léeg li ngay gis lan la mooy nit ñi ñooy jóg bëgg a seen bopp est-ce que xam nga ni loolu mën naa indi fi nekk ni instabilité mën naa indi jafe-jafe ci réew mi ndax nit koo gaañ mbokkam wala nga rey mbokkam rek mën naa am lum la jàppal wala lum la gisal kon nag loolu mbir la moo xam ne état moo ko war a gérer boppam ba nga xam ni kenn du jóg di fajal boppam la ñu gis loolu lañ jàppit ni moom mooy li jaadu ndax ci réewu yoon lañ nekk kon nañu ko ginnaaw mébétu askan wi la bëgg-bëggu askan wi la loolu nañ ko dem ci assemblée su ko defee ñu voté ko jàmm ni ñooy lu ci xewate lu mel noonu yoon rek mooy ki nga xam ni moo ciy am kàddu moo ci am sañ-sañ. dernière question soxalaat actualité bi fan yi euh, ñu gis ay vidéo yu doy war mi ngi circuler euh, ci réseau sociaux yi di wone ay xale yu ndaw nekkin gu ñaaw euh, gu ñu nekkee woon foofu le ca sali ci 15 août bile yéen ngeen nekk ci collectif ànd sàmm jikko yi lan mooy si sa xalaat ci jikko yooyu nga xam ne gis nañ ni dafa yàqu wala mi ngi yàqu bu baax a baax fii ci senegal Euh, jikko yu yàqu crise des valeurs euh, dafa mel ni sa laaj bi nga laaj laajoon nañ ko ci Euh, assise de l'éducation bi amoon ci les années quatre-vingt nga xam ne ay kàngam kilifa yu mag a mag tey jii euh, ci biir réew mi am na ñoo xam ne ñoo ngi dund am na ñoo xam ne jiitu ji nañu yàlla leen yàlla yërëm donc daje woon nañu ngir waxtaanee lii ñu seetlu ci jikko yi tàmbalee yàqu ci biir réew mi xam nga déjà année quatre-vingt ak léegi rek ay at yu bari la waaye terewul ëpp na ñeent fukki at <coughs> waaye terewul boo seetloo loolu da ngay gis en tout cas man ci sama gis-gis ni bokk na ci lu ñu war a delluwaat mooy jëmmi jàng de dëgg la naam baax na waaye yar aussi il faut mu am ci yar éducation waxuma enseignement waxuma distribution de connaissance jàng déedéet waxuma loolu waaye yar laa wax éducation te éducation boobu buñ koy wax nag maanaam ñépp a ci am responsabilité mënta doon lu théorique rek mag ñi nga xam ne ñoo jiitu ndaw ñi di xool ci ñoom seen comportement sax dafa war a irréprochable waaye su fekkente ni nit ñi dañuy wax lu leen neex def lu leen neex ndaw ñi bu ñu jógee def leen neex wax leen neex tamit buñ leen reproché loolu ndax ci ñun lañ ko gisee kon éducation boobu lu yaatu la lu am solo loo xam ne ñun ñëpp am nañ ci responsabilité ci wan ndaw ñi aw yoon tette leen ba xamal leen ak mbaax di ko jëf ñoom ñu koy man di jàng ci ñun waaye tamit euh, la famille xam nga soxna Ndeye Kumba la mm. famille dafa mel ni mm. jouer rôle am aussi mm. te loolu jafe-jafe la actuellement te na famille daan doxalee nga xam ni nit ki léeg-léeg lii njëkk a ñëw ci moom ak pas-pasam mi ngi bàyyi ci ay waajuram mi ngi bàyyi ci famille am loolu dafay mel ni famille bi léegi euh, talatuñ ko ndax ñoo ngi daw ñoo ngi tal lu nit ñi lekk ak naan ak euh, vraiment consommer ay bien ba tax na fi mu ne li ñu waroon a def ci ndaw ñi sax defatuñ ko dañ leen a bàyyee seen bopp rek fi mu nekk nii malheureusement ak mbedd mi malheureusement ak télé yi réseaux sociaux yi ak yeneen yi dul yooyu waaye tamit bu mu yem ci loolu la ñun ñii ñëpp ñoo ngi fàttaliku ci sunu bi ñu nekkee ay xale da nga gis ni boo masaan a génn def lu lu noonu képp ku la mag sañ na laa jubbanti ni la lii doo ko def sañ na laa sax dóor la jàpp sa loxo ba yóbbu la ci sa waajur euh, sa waajur daf ci kontaan ni ko sa sa ndijaay lii mu def dëgg la wala sa papa ji ni mu def dëgg la wala sa mag ji ni mu la léegi loolu kenn xalaatatu ko nga xam ni am na yeneen yu waral fi mu ne kenn xalaatatu ko te loolu société bi daan taxawee tamit lu am solo la waaye tamit ma daaneele ci bi mujj rek mooy li nga tudd nag fi mu nekk nii muy li ñuy consommer ci télévision yi li ñuy consommer aussi vraiment ci réseaux sociaux yi aussi vraiment danger bu rëy mi ngi ci xam nga xale yi fi nekk nii xamuñu xàmmeewuñu te à travers les réseaux sociaux yi fi mu ne kenn ku nekk mën ngaa yegg ci lu nekk mën ngaa accéder ci lu nekk ci plateforme bu nekk mën ngaa accéder ci site bu nekk te loolu lim mën a def ci yow ci jeexit aussi véritablement lu mel nii lay doon ak yeneen yi ko nuru ba tax na nag man jàpp naa ni toll nañ ci foo xam ne war nañ koo réguler mbir moomu maanaam war nañoo toogaat nag saytu ko ba nga xam ne ay restriction dana ci am comme ni ko yenn te réew yi di defee boo demee Chine tey par exemple man na maa joxe benn exemple rek lu mel ni Facebook amu fa ah boo demee tey ci yenn ti réew lu mel ni Iran wala nga dem ci réew yi golf yi am na yenn ti plateforme ci réseaux sociaux bi nga xam ne si du fa dox te loolu yëpp li koy waral rek mooy fiir gu ñuy fiir ak bëgg protéger seen i ndaw ndax ñun ñëpp a xam ni li ëpp ci nit ñi xamuñu rawatina ndaw ñi kon ki nga xam ne xamagul ba mën a xam li muy tànn li gën ci moom ak li baax ci moom kooku soo ko bàyyee mu mën a accéder ci lu nekk mën naa dajeeg lu koy gaañ loo xam ni fekk na baaxul woon waaye xàmmeewu ko ñoragul woon ba mën na tànn la mu war a tànn kon loolu dafay mel ni suñ ko teelut a fakk tamit ah, lu mel nii danañ koy faral di gisaat. Ababacar Mboup Rewmi FM mi ngi la jaajëfal. di leen di gërëm Ndeye Comba. may fàttali ni yow yaay coordonnateur bu collectif ànd sàmm jikko yi.